alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi wax ni ñun ñëpp ci yàlla leen jógee te ci yàlla la ñuy delluwaat. di ko wax wax boo xam ne ànd na ak suñ xol mu ngi fees ànd na ak suñ xel mu ngi réer ànd na ak suñ tiitaan ngay ànd na ak suñ njàqare li ñu dalal rekk mooy diine ji ñu nekk muy lislaam yonent bi yàlla def ci moom lépp lum def ci moom defe ko nam ko defee ci moom mu doon ku kenn doonut bi mu wanee ginnaaw abubakarin siddiq dafa dalaloon xeli julliti ci benn baat mooy ku doon jàmm muhammad deena ku doon jàmm yàlla yàlla sax na lim ñu bàyyil mu ngi fi neen ci topp jullit yi nekk ci ngëlmande loo xam ne kenn mënu ko misaal téere yi wax neen ci lu bari nit ñi nekk ci xiif googu ak mar googu ba bi yàlla feeñalee cheikh na ahmad tijaani shérif radiallahu anhu mbégte yi bégaat ba suuf yu wowoon yi dañoo nooyaat meññeet yu dee yi dañoo dundaat niiw yu nekk ci biir bàmmeel di bégee ñooñ suuf ci dund ak cheikhu tijaani malayka yi di mébét yàlla soppi leen doomi aadama ñu nekk ci àndandoori cheikhu tijaani yi noonu la demee ba bi Seexu Tijaan yi génne àdduna njàqare ñëwaat ci àdduna nit ñi réer masala yi commencé di réer mu ngi mel ni yow mu defar sa lal bu rafet teg ko ba pënd ku ñëw foog na du bees waaye bu mel ni sa ñëwee ba fompaat ko ñu xam ne bees la noonu la diina lislaam meloon tariqa Seexu Tijaan di yoon boo xam ne ku ci jaar baax am ay kàngam yoo xam ne dem neen ba suñu wékkee seen mbubb yi ci portemanteau Cheikhu Tidiane leen koy wékk dem neen ba ku leen nuyu nuyu Cheikhu Tidiane ku leen xool bët teg nga bët Cheikhu Tidiane yi ñu bari tasaaro si goxi àdduna ba xamoo kan mooy kan ci biir nit ñi ba yàlla indil ñu mawlaaya alhaji cheikhul islaam alhaji ibrahima ñas baay boobu ba léegi xol yaa ngi dund dee guñ te yàlla buñ dee kon cheikh muhiddin jàllo mi dem ñett ñi ma tudd tax nañu mun koo muñ ba mel ni deyam safuñu nit nag su dee den koy mun a seede mënuta am seede bu ëpp jullit la woon waaye léegi nit ñi dañoo bëgg yaatal ba wax su réyut du saf waaye réel wax ci Cheikh Mouhidine jàlloo it foog ñu simplify ko because simplicity is a class loolu la anglais bi wax mu ne nga woyofal mbir dëgg-dëgg mooy maanaa eh, woyofal mbir nag ci waxin mooy bu ko diisal bu ko garaawal dañ gis léegi nit ñëw war a wax ak yow du wax ak yow daf la naan dama gént démb foog na ne su la dama bëgg sax du rëy foog mu tudd ci gént euh, wala mu waxal la ne warlu naa gëñ na ngir wax ji rëy jamono boobu lañu tool li may wax ci moom mooy war nañu jàngee ci moom ne sëriñ la woon boo xam ne boo demee ci murit yi da ngay foog ne taalibeeb murit la nga dem ci laayeen ñu foog ne taalibeeb laayeen la nga dem Tiwaawoon noonu taalibe baay yu bari dañu foog ne taalibe baay la loolu mooy taalibe bu mat taalibe bu mat su fekk yaa ngi taxaw wax ñu xam foo bokk rek sa taalibe des na waaye sama mahabbatu leer na eh, mbëggeel ak taalibe yetu nag du benn taalibe yetu mooy nga tëddee njaaxanaay jël li matam a mat royukaay teg ko sa kanam da ca roy lu matul royukaay nga bàyyi ko xam ne du sa mbir Cheikh Mouhidine sàmba Diallo nekkoon na ko xam ne musuma dégg mu wax ci benn kër lu ñaaw <clears throat> euh, li ma mën a seede ci moom li may koy déglu yëpp benn yoon la wax lu ma d'accordul mooy bi muy questionné xatmiyatu ak katmiyatu waaye dama jàpp ne lu ko yàlla lënd lëndëmal la ci xam-xam waaye loolu sax du bàkkaar nit ku dund ci jamono technologie bi vidéo yi nekk fi ñu ngi ci jamono screenshot capture d'écran ñu ngi ci jamono transfert ñu ngi ci jamono copier coller ñenn ci boroom xel yu mel ni man mosuñ laa gisal ngant lu mooy li nga wax ci xatmiya ak katmiya te loolu ñàkk xam la ndax Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu gisuñ lu ko nit war a mun a bañee Seydi Aliou radiyallahu anhu mu ne lu la réer ci Baye rek mbaax goo xamut la eh, Baye Niass moomu bi feeñalee sirru la ilaha illallah indi faydu am na ay nit yu sell yu ko contrôle teg ko ci xam-xam loolu réer la ci xam-xam waaye fekk xamoo ne danga réer lu loolu ngant lu yàlla di jéggal xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la muy nit koo xam ne musuta wax loo xam ne dafay tayalloo ndaw ñi ci jaamu yàlla ndaw bu ko déglu di nga sawar ci jaamu yàlla muy nit koo xam ne jëlul mbaax teg ko ci kër am na taalibe yoo xam ne dañuy fag ne waa kër Baay rek a baax am taalibe yoo xam ne dañuy foog ne taalibe waa kër Sëriñ Tuubaa rek a baax mbaax jéggi na loolu ndax alalu yàlla la mbaax ngëneel la te ngëneel yàlla joxut ko kenn ku dul boppam wa anal fadla bi yadillaahi yuti man yasha yasha u googu nag war naa tax waruñoo bedd kenn ci mbaax loolu nag ñi am xam-xam duñ ko xam waaye ñi xàmmee ñoo koy xam Mouhidine Samba Diallo nekk koo xam ne wanoon na sëriñ ci ban taxawaay lañu war a mën a am seen diggante ak nguur gi leen jiite te nga xam ne bari na ay nafeq ci nguur gi leen jiite ba nga xam ne bari na ñoo xam ne dara yàlla safut leen waaye luñ mën a ootewoo ci yàlla ngir seen bàkkan moo leen saf Muhideen sàmba Diallo nekk na nit koo xam ne wane na li ñuy wax naan man kaana lillaahi kaana allahu bu fekkee mënoo dégg aaya boobu danga koy xool fu mu dëkk saañ bàmbara ku ko réere kenn lu tax njub lu tax bëgg doomu aadama ak nekk seen service loolu dafay indi waxi imaam cheikh radiallahu anhu yàlla yàlla gën ko fi saxal gudd fan lool ndax njëriñam ci lislaam du lu ñuy naatable dafa wax mu ne def lu baax ci nit ñi am lu baax amul fen mu ne def lu bon ci nit ñi am lu baax amul fen kon loolu wan nañu ne ki nekk saañ bambara ci diggante ville yu mag yi ba soo fa demee guddi nga gis leer gi boo fa demee bëccëg nga gis leer gi xale yi di fa jàng alxuraan di fa xam seen diine mu doon sëriñu exemplaire koo xam ne dund na ba ñëw fii xamuñ ko ci yëfi caaxaan xamuñ ko ci ñaawteef loolu dëgg-dëgg la puugara la ci ñun Ah, Mouhidine Samba jàll boobu nag su wanee ginnaaw tey lii sëriñ ba waxoon ci bi Maodo Malick gaañoo dafa sàdd xalimbaam ne ko yow suuf tey nga suul koo xam ne balal na ci xam-xam lu la fees yow suuf mu ne ko tàdd tey nga yëkkati koo xam ne li nekk ci dënnam bi moo gën a diis géej waaye oyofam ak mbaaxam ak aadaayu doomi adama rek moo tax nga mën koo attan nit ñi tey ñu jooy ba seen rongañ jooy xanaa loolu dafay tombeeg li bàyyi waxoon ne suma ma mbëggeel ci yonantu jooyloo na ma ba suma lex yi tooy ngir rongañ rongañ yi di daanu si suma si suma dënn bi ba bee jaawloo suma suma suma dënn bi ngir bëgg yonantu ginnaaw bu rongoñ yooyu jeexee deret rek moo génn ci man waaja wax ne Maodo Malick jant daanu na boo xam ne xamatuñ fuñ koy gisatee wala fu ñuy amee lu mel ni moom loolu mu waxoon Maodo tagg yu rafet yooyu maa ngi koy àbb ci moom taggee ko Muhiddin Samba Diallo waaye doy na tegtal ñu tuddee ko Muhibbin Muhiddin loolu doy na tegtal ci mbaax gis nga diine lislaam bi tool na boo xam ne yaay kenn bàyyi kenn ëppalewut ci kenn ragal yàlla def bépp def ci mbaax ragal yàlla def jéem a bàyyi bépp mbaax mooy secret yi lislaam boo ci saxee te saxal loolu di dégle lu baax di tere lu bon di dégle lu baax di tere bon loolu dafay doon loo xam ne dafay jëriñ ummatu islaamiya te boo ci yàggee résultat bi dafay ñëw ndax jazaan wifaaqan la alquran wax jazaan wifaaqan la alquran wax kon loolu ñu ngi koy seedeloo nit ñi di wax ne ku ñu war a mun a roy la dégg nañ ci vidéo mi mujj mu ne àdduna safu ko dara moom mu ngay dem mu ngi bàttale lu mu yëkkati ci loxoom ne bëgg na sëriñ si yëpp am ko ñu ngi encourage everybody ñu mën a ñëw am ci loolu noonu ndax ñu mun cee jëriñu mu ngi wax ne su ma demee xam ngeen lu leer bu leen saaga kenn bu leen xas kenn bu leen bedd kenn na ngeen bëgg ñëpp respecté leen ñëpp loolu tombee naa góori yàlla gi amoon ñaar fukki at ak benn ne muaziman li ahlihi jamian la siyamal xaasatu kun mutian kon témoignage boobu leen mun a def ci moom muy témoignage boo xam ne dañ koy moderniser mu dimbale àdduna dimbale kuy jullit ak kudut jullit dimbale kuy sufiyanke ak kudut sufiyanke tey dama bind suma page Facebook ma ne yéen mbooloo mi ngeen xam ne yéen a ngi woote woo ne yéenay sunni yu dañu bedd ñun sufiyanke yi ne duñ sunni yu déglu leen kenn ci ñun li mu wax te waxam jooju dafa dëppoo ak alquran waxam jooju dafa dëppoo ak sunnatu rasulillahi te kenn la ci mbooloo mi am na ñu ko sut am na ñum sut ñu nekk sufi kon amut benn dalil bu wér ci sufiyanki bu wér ñu mën a taxaw ne dëgg-dëgg xéeféer la wala du jullit lu dul ku réer te képp ku réer yàlla na la yàlla gindi ndax njub alali yàlla la moo tànnee ndeyjoor jubal leen tànnee càmmooy jubalul leen yàlla buñ bokk ci càmmooy te bokk ci ndeyjoor yàlla na yàlla yërëm cheikh Mouhidine Samba Diallo yal na yàlla jéggal ko yal na yàlla ruus ko yal na yàlla fay ko yiw te jéggal ko bépp rëcc ci leeram ak barkeem yal na des ci njabootam sàmm njabootam ci liñ ko gisee woon ñu gis ci njabootam luñ ko musta dégg buñ ci dégg njabootam te fu yemoon njabootam continuer ko ndax doom ju baax du ndamoo baayam waaye day fexe baayam ndamoo ko ne doom ji ba ma ko juree fi ma mënoon a yem passé na foofu ñu ngi jéggalu ñëpp di jaale ñëpp di jaale suñu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane ndax moom képp ku baax doomam la képp ku baax xaritam la képp ku baax mbokkam la ñu ngi gaale jaale fadilatu imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mu baax mi ñu ngi jaale mi dina Baye Niass ku bëgg Baye ku sopp Baye ak taalibe baay ndax Baye dafa def ci ñun ñu xam ne mbaax amul place amul barab fu ko yàlla def rek ñu ngi koy fontu ñu ngi koy xencu moo ñu tax di or moo ñu tax di dem màkka moo ñu tax di siyaare ji gunjur moo ñu tax suñu jotaay yi bari bariwuñ doose bariwuñ xajaan bàyyi def ñu wax mbaax te fuñ gis mbaax dem fa lu rekk la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.